mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi fii ci barab boo xam ne ni yaakaar naa ne ku ko xamul it dégg nga ko muy mbaari Madiana muy axe bi nga xam ne ni ndox mi daf ko jël en otage lu ëpp juróomi at a ngi te mbokk yi barab bi ñu taxaw gën jaa néew fanweeri quartier ak juróom-ñett boot na leen yoon wi mooy yoon wi nga xam ne moo doon seen axe principal fi lañ daan jaar mbokk yi buy nawet jototee ñoom bokkatuñu ci dëkk bi jàmbat nanu ba tey dig nañ leen ba tey it xëy na balaa yàgg ñu talil leen ko waaye Touba ca kanam yittey askan wi rek ci lañuy xëy ci lañuy gont màggal gi dëgmal na yegsi na nekk ci catal nawet bi mbedd yëpp ndox mi nangu nañ ko Touba ca kanam dem ci seen ñaar téeméer yi nga xam ne moom ngeen ko doon jox mu di ko dajale génn ca cent cinquante million fas yéene koo def ci taataay ci làmp ci ndox mi mbokk yi fii nee naa leen ay at a ngi nii bu tawee kenn du fi jaar Touba ca kanam dafa ñëw gas li fi nekkoon ci matière li fi nekkoon ci ban kenn mënu laa wax nu mu toll image gi nii yéen a koy gis ñu génn ko ba mu set wecc fas yéene koo remblé ak suuf ak xeer fii may wax ak yéen axe bii ngeen gis def nañ fi lu toll ci cinquante cinq camions yoo xam ne ay camions suuf la te noppeegunu de lii de jàpp naa ne bokk na ci taxawu askan wi lii de jàpp naa ne bokk na ci li tax seen ñaar téeméeri ngeen joxe ko xam ngeen ne barki démb ñu ngi def ñoo di xayma li ñu defagul ak li ñu jot def ci màggal gi fàtte nañ lu rëy nag li nga xam ne Touba ca kanam def na ko waaye lu ne fang kenn du ko jeex loolu xëy na kilifa yi dinañ ci indi ay leeral waaye fii may wax ak yéen mbokk yi Touba ca kanam mobilisé na lu toll ci juróomi téeméeri camion cinq cent camions juróomi téeméeri camion suuf ngir lan fépp fu ñu fekk lu mel nii mbedd mu mbeddum sëñ mu ñu jël en otage Touba ca kanam fas yéene ñëw libeere ko bu ñu noppee fii dañ leen jox dig daje sexew xew ga kër ñaan Jóob kër ñang mbokk yi dëkk bi yëpp barab yu mel nii xam ngeen ne bari na fa waaye yaakaar naa ne juróomi téeméeri camion yi nga xam ne Touba ca kanam daf koo faggu fas yéene ko def ci mbedd yi ngir jëmmi Serigne Bamba mooy seen ñaar téeméer yooyu kon bu leen ko xeeb de bokk ci tubaat ca kanam nag mooy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ndax lii taxawu askan wi la ñii mbokk yi ba nawet bi dooree ak léegi fii kenn jaaru fi dañ daan xuus pour fekki sareet ya taxi boo wax mu wax la 3000 boole ci mer ndax bëggut dem sareet yi boo leen fayee téeméer sax du ñu dem lii nag jàpp naa ne bu ñu ko toppee ah ëllëg ñu séentu buñ ñu talilul suñu dëkk sax ñu war koo mën a talil suñu bopp ndax kat li wér te wóor te feeñ ci ndaje mi nga xam ne doon nañ ko def ci xayma yi ñëpp d'accord nañ ci ne problème mu Touba rëy na rëyaay goo xam ne waa Touba dong ko mën a saafara keroog ba ñu buggee tabax jumaakat te ñu ne raay faat na sëñ Modou Moussa dafa engagé ñu gas cinquante cinq kilomètres ci ñaari at ak ñeenti weer looloo tax jumaa ji taxaw ñu yanoo ji xeer ya ndokk jële suuf sa ndaamaatu ba jumaay Tuubaa ji taxaw raay bi yegg si mbokk yi kër sëñ Tuubaa yi ngeen di dégg yëpp nii rek lañu ko liggéeye ndax sëriñ Tuubaa laajoon ñaar fukk ak juróom-ñett de ne dama bëgg bu ëllëgee lépp lu ngeen yitteetiwoo ngeen def nii ndax damay bañ ku leen mënal sajal leen Masalikul Jinaan ni ngi nii plus de 20 milliards ci lan kon bu leen Tuubaa ca kanam waxee joxal ñaar téeméer ngir jëmmi sëriñ Bamba tey de xam ngeen ne lii moom weddi gis bokk ci image yaa ngi nii nag xool leen yéen ngeen xool nam meloon ak nii nga xam ne noonu la mel te Touba ca kanam noppeegul de ku ci soo xool seddul rek da nga dul dara doo tiidaan doo murit doo leneen ku ci soo xool seddul rek doo dara waaye jënd jëpp joo xaay taalibe nga sa xol sedd na ci te bu ñëpp mel ne yéen itam day billaahi lenn dem ca kanam kon la bi Sëriñ Tuubaa bàyyi wan daanu ko gisaat te lii de kanam la jëm wajalilaahi maskani misras mi abijaayi xayri ma nabaat wajal ilaahi maskani tuubaabaat misla ismi abijaahi xayri man nabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaa lii dafa sedd sama xol waxu waxuma ko ngir ngistal waxuma ko ngir bëgg ko ma gis waxuma ko ngir leneen waaye eh, eh, ki nga xaay moo moo sos lii ba dem Sëñ Muntaxa yal na fi yàgg ki sos lii yal na fi yàgg te loolu rek loolu rek a mën a nekk Touba ca kanam nag ku ci des ginnaaw it da nga ko des ba ba ba fan jëm képp ku ci jiitu yi na leen wóor ne kanam la jëm kenn mënu fi woon a jaar mënoo fee jaarum noor mënoo fee jaarum nawet ndax bu na bu nooree say tànk day dugg bu nooree ndox mi di bëruus waaye nii mu sete ba leere nii yàlla na ni mbir mi gën a sete gën nee leer te day gën a leer rek noo ngi leen di sant nag yéen ñi ne ci yoon wi di leen gërëm li ngeen di liggéey nag moom daanaka jërul wax moom ku gëmm boo jogee gis ku xool gis ak sa bët ku lu dégg loolu na leen wóor képp ku leen xoolul bët nag yàlla bu nga ko xool noonu ba yow ma xiyam ku ànd ak yéen nag kanam la jëm